الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رضي الله عن شيخنا ومشايخنا أجمعين وعن أولياء الله السالفين والخالفين يا شيخي احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا وظفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي جلدي مبكي طالبي mbokki seen bii di Ibrahima TV ci seen émission bii nga xam ne mooy bibliothèque de la fayda ñu ngi ñëwaat incha allahu ànd ak yéen ci suñu darsu ci téere bii di nujuumul huda fi kawni nabiyina afdali man daa ila wa hada yaakaar naa ñu nekk ci ñetteelu tomb ñetteelu darsu ñuy dugg ci ngëneelu moolaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw lam yaawi yëpp waaye ci kaw mboolem bindee fi sëriñ bi radiallahu anhu wan nañu li tax mu buur ngir bind ngir leeral ay point yoo xam ne ne ñenn ñi ñu ngi ci gëlëmal ñenn ñi mënoon sax du ci wax waaye mu toog ba ragal réer am ragal mbeewte am ragal yàqute am mu daal di yëkkati xilimbaan dars bi weesu kon mbokk mi ñu ngi ko jeexale woon ci waxam jëm ne fa laysa yasixu fi l adhaani cheyun ma taxtaaj annahaaru ila dalil mu ne daal nekkatu di wérati nag dara nag ci no ci xeli dara dootu wéerati ci dégg nit ñi nag su fekkee ne dem nañ bay soxla ñu leeralal ñu bëccëg bi bëccëg laat bu bëccëg ah wax dëgg yàlla loola nag tolloog yonent bi sallallahu alayhi wa ndax moo gën mbindéef yi wala déet loola mi ngi mel ne rek nga ne bëccëg bi moom leer na te soo ñu toppee incha allah di nga gis dalaa'il yi nga xam ne indi na ko firnde yi nga xam ne indi na ko teg ko ci xam-xam teg ko ci xaddis teg ko ci alquran bu ci nekk rek di firnde ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy xayru tey mooy page bii nga xam ne gis nañ ko mooy wa xaytu an al muxaatabata مع غبي من الأغبياء نكتب مجاراة مع غباوته بنصب الدلائل بنصب الدلائل والآيات فنقول نص القرآن أن محمدا رحمة للعالمين وصح أنه شفيع فيهم يوم القيامة وسيد ولد آدم وآدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة وأنه خاتم النبيين وإمام المرسلين ولو إمامهم ودينه أفضل الأديان وأمته أفضل الأمم وكتابه kon oh, lii mooy suñu darsu tey Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu li am mooy koo xam ne sax dafay jéem a wax ak kenn ku beew ci way beew yi maanaam nit ku xam ne sax dafay wax ak kenn koo xam ne ku beew la ci ñi beew ah dafay laay booy wax nga indil ko ay ay preuve indil ko ay dalaayil indil ko ay aaya mu mel ni na waxam ji da koy dafa mel ni kuy wax ak koo xam ne xëj na réer naa réere réer ba beew ci réer na xëj na soxla na ko ko orienté mu ne kon naktubu mu jaaraatan dañuy bind rek ngir leerale ngir tollale ànd ak koo xam ne dafa beew ca lam nekk loolu nag buñ koy def mu ne بالنص بالدلائل والآيات دني تك أي أي أي أي دني دني سامبو أي بروف دني سامبو أي دليل دني سامبو أي آيات كوني جل الله أنا ما وقت دي على بوك إن جاء القرآن رج دوار مو يمسجوا تري على رج نلا نعم مو كما سلر لينا فنقول نص القرآن أن محمدا رحمة للعالمين mu ne ñu wax li ñu wax daal li ñuy njëkk wax yi mooy mu ngi la waxoon nag kuréel yaa ngay la noonu gën ngeen ngi mbindeef maanaam mooy ngeen ngi moo gën bu yaaw ak mursalin loolu nag la bi yëpp nag mu ne li ñuy wax mooy alquran yaxal na ne nas alquran alquran mooy yaxal ne na muhammadan nag muhammad sallallahu alayhi wa sallam rahmatun lil la ñeel alam bi wa illaa rahmatan lil alamin ci suratul anbiya yonent yi ku mu nekk ci ñoom yàlla def ko yónni ci xeetam wala mu yónni ko ci askanam wala mu yónni ko ci famim yonent yàlla muhammad kese yàlla yónni ne ko ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yow rek lañ yónni nga nekk de wala yónni wuñ la lu dul nga nekk yërmaande ñeel mboolem mbindeef gis nga aalam rek jamaw la ci boppam waaye mu dellu ko defati mu dellu ko mel ku koy jamawaat ña aalamiin ña dëkkee aalam ba bawuma kenn waaw mboolem kuy dox ci kaw suuf rek ci aalam nga bokk wala sax ku nekk ci asamaan wala sax ku nekk ci foo mën a nekk ndégam yaa ngi ci dindab yàlla bii rek yaa ngi ci aalam kon ku baw dara nit ak jinne ci yam lii nag moom rek la ko yàlla xanaa kon nga ne am nga benn ngëneel li nit ki liñ koy gënee mooy li nekk ci yow te nekkut ci nit ki li muy gënee moromam loolu olof dafa wax ne nit li muy gënee moromam buy bu ko buy sangu du ko simmi kon ci moom lay nekk ngëneel dellu amaat beneen ngëneel dellu amaat ngëneel bu yàggee ngëneel yu bëri ku am fukki ngëneel nag wax dëgg yàlla du am du yem ko am ku am benn ngëneel wala ku am ñaari ngëneel kon benn ngëneel ngoog mooy di yonent bi sallallahu yàlla ne ko wa ma إلا رحمة من يبتعي وصح أنه الشفيع فيهم يوم القيامة والسيد ولد آدم بنن وخ نيوتي من تورنني ينتبي صلى الله عليه وسلم أنه الشفيع ما أجتنجي fihim fa ñoom yonent yëpp yowmal qiyaamati moom mooy leen aji tinu ji kere yowmal qiyaamati moom rek la yàlla may shafaatul kubra loolu moom rek la ko may beneen ngëneel ñëwatin dégg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na ko wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda ah yow day sa borom dina la jox ba nga gërëm yonent bi nag bokk na ci lay la koy gërëmal la koy gërëmloo mooy aw xeetam mucc aw xeetam texe moo tax itam keroog bu yëfi méttee lanbiyaaw yeeg mursalin yëpp ya nit ñi sàkku ñoom shafaatu yi fi jafe sàkku nañ ko ci aadama suñ maam mu jafe sàkku nañ ko ci yoon ci yàlla Nuux mu jafe yoon ci Ibrahim yoon ci Musa, Muusa yoon ci Isa kuñ ci mën a dem rek nga lay kuñ ci mën a dem rek kuñ ci dem rek nga daa di lay lay wu rëy wane ne man day manuma yoon ci yàlla aadama da ne man lañ génnoon àjjana ci sama tooñ bu rëy ga kay taluma kenn sama bopp laa tax yonent yàlla noox ne ah man nag sama bopp rek laa tànn waaw ñu ne yonent yàlla Ibrahima mu ne sama bopp rek laa tànn ku ci nekk rek lay ñu ne yonent yàlla Moussa sama bopp laa tànn maa ngi nii maa maa naa rayoon waaja yonent yàlla Iisaa ah, man kat man sama bopp rek laa tànn maa ngi nii man la ñu tuumaale ma ak sama yaay ñu tuumaale ne man yàlla la ma ak sama yaay ku ci nekk rek lay. yonent bi kese sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla waxoon ne wala soo fi uti karab bu ko fu sarda rek moo amul lay la ko ko may na moom shafaatul yàlla may ko beneen nga ne la tamit ndaxte sayidna anas ibnu malik radiallahu anhu nettali na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bis penc dañ naan ko sal tuuta def na ko wax ne ko sal washfa wala tushaffa yow daal laajal ñu jox la waaw loolu Cheikh di wax ci wéy sal tuta washfa tushaffa kasira nasi mais dañ naan ko sal tuta shfa tushaffa dégg kon loolu ngëneel la xam ne yàlla moo ko jagleel mooy shafaatul uzma rek bi ñëpp tiit yàlla ne ko kaay oo ñaan rek ma may la ko ndaxte yow yaay xaatimu nabi ngay kon loolu beneen ngëneel la mu ne wa sayidu wala di aadam beneen dikkatina mooy mooy sang mboolem ku maam aadama jur wa aadamu aadamam sax man duunu ak képp ku nekk ci ronam taxte liwaay yi ñu ci ron drapeau drapeau am mboolem yonent yàlla mboolem ku meññ keroog bis penc ñu ngi ci dara drapeau yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neex naa gëm ndegam àdduna fii la tinu di amee ay waay bu ñu demee bu bisa bërëg rëg rëg loo baag bisu tiitaange wi itam faaw rek yàlla may koo xam ne bu ñaanee rek mu nangu yaa neex naa gëm yaa saqaral ilaahu unaasan bi saidin fa innahum suada tàggatil yow nit ci ko aji texe mu texe ku nekk ku texe rek na laa wàll ci texem la rawatina muy koo xam ne kay texe ruus na ko bëgg na ko ba lum ko ñaan sallallahu wa sallam wa annahu xaatimu nabiin ba tey beneen ngëne la ngu yonent bi sallallahu alayhi wa mboolem li yónni yàlla mën naa may nit lu nekk ci kaw suuf ba mooy nu wata risalatu ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boolem yonent bu yàlla yónni rek buy dem dina bigal aw nitam ne yonent dina ñëw sama ginnaaw dégg nga ba moom ñu ci yàlla musal yéen mujj sax mubashiran bi bi rasulin yaati min ba'di ñëw sama ginnaaw Ahmad bokk na ci turam yonent bi Ahmadu waaye gaañu yàlla. إنما كنا تتحدث دائما ولا داعي يدين بكي kon mooy xaatimu nabi in moo ñëw tëj buntu moom te kudut moo amoo loolu wa imaamu moom mooy seen njiit li gisee ci isra wal mi'raj bi ko yàlla rañaane moo nettali boppam la ci xaw yëpp bokk na ci jiite mboolem lam lambiyaa wala muslim kon li ay ngëneel la waaye mu fa wa diinuhu afdalul adyaan diina yonent bi sallallahu alayhi moo gën mbooleem diin yi diinaam ja moo gën mbooleem diine yi loolu itam alquran moo ko ñëw leeral wane ne képp koo xam ne yaa ngi jàpp benn diina bu dul diine lislaam ah dee ko nangu de wa man yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu fi l axirati min alxaasirin ci aali imran far yàlla gën a gën koo dëgëra sax ba tëkk ko ca ne ji mais ah yow mi ne ci diine joo xam ne di wax wuute naa diine lislaam ji dañ yow kere bis penc da ngay perte de képp ku beneen diine bu dul diine lislaam ginnaaw bu diine lislaam xasee ba ñëw ku ko wuutati wuutati beneen diina bu dul islaam man yàlla du ko nangu de te kere kere bi penc da ngay da ngay kon bu ne wa diinuhu afdalul addiyaan diinaam ji moo gën diina loolu nafsu zikr kon diinaam jee gën sallallahu alayhi wa sallam loolu alquran moo ko moo ko dëgëral wa ummatuhu xeetam wi afdalu umamin moo dañ mboolem ay comme ni ko waxee ci njël yi xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën mboolem xeet yi moom it ba ñuy ci alam raan kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ta'muruuna bil ma'ruufi wa tanhawna anil munkar wa tu'minuuna billah mu nekk den nga laay joo xam ne dëggal nañu xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën mboolem xeet أغلان وأمته خير أمة خير ولا أفضل أمم خاتم يغن سي خير لا جي دغال نكو وكتاب أفضل كتاب مولم تيري القرآن كي بن مولم نكون سي تيري كو جيتو تولا تك لنجيل اك زبور يب يالا دخل نكو سي بير القرآن أك يينن صحائف يدي نيوم مو القرآن بن مولم تيري موتا يالا وخال بوبام ني بوقت بنته إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ñun yàlla ñu wàcc alquran ñu ko yit moo tax mbooleem téere bu di alquran am na taxrif am na tabdil am na nangam am na nangam comme mooy alquran alquran rek mooy téere boo xam ne benn xaraf ni mu ñu ko ci yokk mbaam wàññi ko ci benn shëdd ni mu ñu ko ci yokk mbaam wàññi ko ci nam wàcce woon ci baytul izzi seydina jibril jël ko indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi ruuf yaag kalimaat yaag aaya ba tey dara soppeeku nose mu gën a rafet rek wàññi mbala yokk moom moom ba pincam yàlla ñu loo rek wane ne mooy téere bi gën ndaxte loolu gënee na ko yeneen téere ya ñun fekk nañ seen téere ya seen kilifa ya dugal ca wàññi ca fekk ca dugal ca wàññi ca waaye alquran loola beneen bi mooy mbooleem ngëne di nekk ci téere yàlla dugal na ko ci yoo xam ne mu ngi ci dégg nga téere yàlla dugal na ko ci alquran beneen bi alquran dafa am ijaaz ci mbooleem fànn boo demee ci xarafa ni am na ajaayib yi ci nekk Hmm? boo demee ci kalimatam na ay kéemtaan boo demee ci aaya am na ay kéemtaan boo demee ci saare am na ay kéemtaan booleem fànn boo jël rek boo demee ci alquran am na ci nga ci defe ñoo xam def kon lii mooy nga xam ne moom la ñu waxoon ne ci ñu ñëw tey jël ko ci mbindi téere bi di Nujuumul Hudaa incha allah mu nekk lenn ci preuve nga xam ne góor gi teg na ko di wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ak liñ ciy moom mawlaana rasulullah sallallahu alayhi wa bokk na ci lim gënee yonent yi mën nañu wax ni li ko yàlla yónni ci mboolem adduna te loolu moom rek moo ko am kurul moom ci aw nit ñi waaye yàlla may ko shafaatul uzma keroog yowmal qiyaama rek moo sañ wax ne tinu naa kii waroon a dugg safara na dugg àjjana yow yàlla kii bu mu dugg safara na dugg àjjana sama xel boobu yàlla na ko nangul naa la ko loolu moom rek moo ko am moom rek moo am nekk sang doomu aadama ndaxte fekk na ay saxaaba di wax ñoom ne ah yonent yàlla aske yonent yàlla ibrahim xam ne muy xalil aske yonent yàlla muusa al kalim yàlla daan wax ak moom aske yonent yàlla isa mi daan dëkkal ku dee aske aske aske tudd lim ndek yonent baa nga lañu dégg sallallahu wax ci yonent sama mbokk yonent yi ah li yàlla may leen yàlla màggal na leen te teral waaye ma xamal leen ne ñoom ñëpp bu ñëwaatoon tey sama ron la ñu nekk sama la ñu def di man maay sang doon aadama wala fax naa sayid góor gi radiyallahu anhu indee ci téere bi wane ne moom moom yonent bi salaa salaam sayid di aadam mooy sangul mboolem doomu aadama yi yonent bi salaa salaam moo ko wax ci boppam kudut moom kudut maanaam kudut moom yonent bi rek moom ci moom moom mooy maanaam mu yonent bi mbooleem mbindeef la ko dagg ci aadama ba ñu suuf ñëpp ci ronam ci ronu drapeau bi ngi dinde waa alhamdulilah ki réewam xiyaamat ci lañ loolu yi danañ ko ci déggee dañ ci déggee ne moom moo tëj mbooleem yonent yi borom ñu wéyal borom risaala waaye dañ ci déggee ne diinaam gi moo gën mbooleem diine gën ci dégg déggee ne xeetam a gën mboolem xeet yi déggee ci ne téeréem bii di alxuraan moo gën mboolem xeet wax ni point yii lañ jàngee tey ci ngënil gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ci kaw yeneen dégg nga yeneen yi loolu nga déggee ci kon mais point yi moom rawaalee na leen ko te góor gi dana indeeti yeneen point yoo xam ne yu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko roy yonent yi te lu ci nekk xadis dana ko wéral wala alquran wéral lu ci nekk rek xam-xam dana ko wéral ci yeneen yu xam ne wane na yonent yi moo gën yonent bi sallallahu alayhi wa nga bu ci nekk dana ko indi point par point kon gis nga lii tey danañ gisaat leneen loo xam ne dafay gën a wéral loolu dimanche bii di ñëw wa salli allahumma wa sallim ala sayyidina wa mawlana asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ci yàlla le Ibrahimiya bii di chaîne YouTube bu mag bi ngeen xam ci dëkk bi moo leen di yëgal ne indi na leen lu bees tàkk tàkk tàkk muy émission bu am solo bi ñuy dippee bibliothèque de la faydatul Ibrahimiya émission bi fan lay amee moo ngi amee ci seen youtube bi di la Ibrahimiya TV ku ñu koy amal mooy oustaz Assane Kébé Assoufy te nag oustaz Assane Kébé Assoufy dina amal émission bi ñaari yoon ci semaine bi maanaam semaine bu jot dinañu defal émission bi ñaari yoon ci bés yi nag lay am talal leen seen baaxam dina am jeudi bu jot ak dimanche bu jot mbokk yi maa leen di fàttaliwaat ni nag dina amee ci la Ibrahimiya TV ñu gën ko xamee ci l'univers des Barhamiya mbokk ci yàlla xam ngeen nag ku wax univers da nga wax ña fa dëkkee te ku wax doomu aadama ala kulli xaal da wax seeni itte ci sàkku xam-xam rawatina nag ñooñ Mawlana Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass radiallahu anhu looloo waral la Ibrahimiya TV daal di leen di indil seeni émission la bibliothèque de la Fayda ñu ànd ceeg kan oustaz Assane Kébé as dañu dugg ci biir bi nag dal di leen di jàngal ay mbind Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu moo xam ci ay téereem ay leetaram ba ci itam ay xutbaam waaye nag duñ ci yem de dañu leen di toppal ay mbind yeneen borom xam-xam ci biir faydu bi maanaam ci faydata tijaaniya bokk na ci téere baay yu ñuy tàmbalee yi may bëggalim benn bi ci njëkk mooy nu juumul huda bi ci topp di maqaama diina asalaasa beneen bi di bayaan wa tabi bu ci toppaat di diwaan ak beneen bi di jaamu bi nga xamante ne Cheikh Ibrahima moo ko bind mbokk yi nag la Ibrahima TV comme li ngeen ko xamee mooy l'univers des barhamiens foo xamante ni lépp day bàyyee rafet sell jekk maanaam day saf sàpp Maulana Barhamu Ibrahima Niass amul leneen amul keneen mbir mi bàyyi rek la bàyyi kese bàyyi kepp kott bàyyi dong kon nag mbokk yi teewlu leen émission bi ndax seen njëriñ kese ngeen ciy gis asalaamaaleykum wa rahmatulah